wóor ak it xeetu mettital yu jéggi dayoo la lu ci ëpp ci ndongol daara yi di dund ci seen daara. jaar nañ ci daara daara jën gisoon na ak jiidaa daa ndax bu fekkee nit dafay jàng àll ba yaakaar naa fa la jàng gën a yombe waaye nga buub xale yi andi leen Ndakaaru kon jàngale too da ngay wut xaalis. say su ne ñuy gën di nemmeeku ni jafe-jafe yi ndongo yi day gën di yokk ba tax ñenn di xel ñaar ci taxawaayub sëriñ daara yi. Euh, maire bi sax tabaski bii passé maag sama copain bi ñoo ànd maag Moussa yi dem nañ ba ci daara ba ba ci daral ba gis xar yu ñu war a jël jox ko taalibe yi. mais bañ demee ba commencé séddale xar yi ñu am benn daara boo xam ne ñun yóbbul nañ fa xar yi mais bañ fa yóbboo xar yi. Euh, sëriñ daara bi dañ ko ne xaride pour taalibé la comme que tabaski bi ñoom souvent dañuy génn di dem yalwaan yàpp bu ñuy lekk léegi jaratul ñuy génn jëndal nañ leen xar boo xam ne bisu tabaski bi rayal xar bi nga jox ko taalibé ñoom ñu feetu ci léegi ñu toog par la suite bisu tabaski bi maire bi taxaw ci balcon am nee mu gis taalibe yi ne ci koñ bi xam nga même chose porte par porte di dem ñaani yàpp mu woo taalibe yi ne leen mais yéen ana xar bu leen jox ah taalibe xamal ne ko xar bi de bi jël na xarbi bi ko village am jox ko ay jabarom pour ñom ñu tabaskoo wo après maire bi maire parce que maire dafa ne lool mënu mënu accepter lool té dafa am ben affaire bu ñu jaaxal ñun dongay daal ñun ñun dongay magi señ bi mom soppiku na tabax na kërëm yor watam bu rafet soppiku mais dong bi ñu ne ko da ngay sori daal do ñàkk sax daal da ngay yem ci ben place do avancer té señ bi mo avancer na señ bi mo avancer na 4-4 climatiseur defar bopam bam normal mëna dong bi yow ben place nga yem yow ya, yemal ci yelwaan rek loolu naqari la. bërëb bi ñu tuddee ko refuge des talibés maanaam bërëb bu daw làqu ndongal daara yi ab soxna bu ñuy woowee Roqaya Sarr dal koy sanc ngir jàppale ndaw yile naam sax bitim réew lay gën di faral di nekk waaye dénk na ko ay waay defal yàlla waxambaane bi kenn la ci ñoom. mooy refuge du talibé maanaam daal. Euh, dalukaay xale yi. refuge du talibé, lenn moo ko tax a jóg maanaam jàppale taalibe yi comme que ñoom dañuy passer la plupart des temps ci mbedd bi xam nga léegi ñu né léegi dañuy créer ben affaire bo xamné ñom ñoom di permettre ñu mëna nek à l'aise baña nek ci mbedd bi di yalwaan ñun ño fi nek chaque jour dal xam nga di fi nek di jappalé talibé dañ leen di jox ndéki bu ñu ndekkee ba paré buñ amé amee tilim ñu changer leen ay yéré buñ jaré sangu tamit amna ñaari toilettes mën nañ fi nek 30 personnes des fois dañuy varier mën nañ fi nek 5 des fois 10 des fois 15 sans départ ci jours yi parce que dañuy jang alcorane ñom léegi ñom bu ñu sangoo ba pare ñun dañu am ño xamné dañuy jappalé tamit vraiment Euh, ñenn ñi ñu ci bëri nag Europe lañ nekk extérieur lañu nekk. dañ jox ay yére dañuy jox ay dàll dañuy jox ay pat dañuy jox ay brosse dañuy jox ay jouet pour daal ñu mën a maintenir taalibe yi ci ordre ci ci bien-être vraiment. am nañu nag six daara yoo xam ne ñoom la ñuy liggéeyal six daara yi ku ci nekk sans pas jour booy ñëw. mu yokk ci ni fi mu nekk nii nag lu toll ci juróom benni daara ñu ngi liggéey ak ñoom. daara yi Ahmed Tidiane Ba bi ci la bile daara mel na ni lépp jaar na yoon bu ñu sukkandikoo ci Mouhamed Ba di kenn ci magi daara yi. bu jàngee julli fajar bu ñu yeewoo ay huit ñu doog a yelwaan ba dix heures onze heures ñu ñëw ñu jàng toog jàng ba quatorze ñu wàcc julli bu ñu ñu añ suñu añee ba pare toogaat ba six heures ñu six heures jotee ñu wàcc ku ne sangu toog noppale ko ba timis bu ñu jullee timis ñu jàngat ba vingt deux heures après ñu wàcc bu ñu reeree tëdd dina law. parfois doo leen di faral di leen dóor ngir ñu mën a jàng. non non dóor moom gaawul moom gaawul ndax dëgëruñ ba boo leen waxee jàng dañuy jàng normal macha allah kii ko ku dëgër bopp moom wax dëgg yàlla amu fi. naam doom dañu koy yar waaye ak it façon yar yi ñenn ci waajur yi yàq la ñu gën a jege que yar seeni njaboot. loolee di gis-gisub Cheikh lay. di gone day ñeetaane. gone dafay ñeetaane xamul ko di ñeeta gone nga ko sang ba mu set yuru ko daal jox ko ndékki mu li gëm loo mu gëm ko waaye gone boo ko bàyyi mooy son dàll dootu gëm li nga ko def dootu ko gëm nu mu koy a mais am nga ci yor ñoom ñi ko def xamuñu dara te du xam-xam du lislaam du diine ndax doomu aadama dane li a defar ci àddina mooy defar doom doom Sëriñ Tuubaa nee na doom da ko yar jàngal ko denc alal defar dooma ko gën ndax boo ko defaree lam lam soxla dana ko mën a amal boppam njëriñ ndax sa doom bu dee nga koy yar di ko dimbale mu miin la xalaat la yërëm la su màggee problème boo amul naqari ko waaye doom joxe dem na ba mag xawmu la du faale du la yëg boo woppee yaram du nekk du am ci yow benn yërmande doom da nga koy wuuf di ko dimbale mu rax ci dolli nii loolee mën na leen a ci lu gaaw mooy xale bi day mujj ci bandi ndax gone du gone du am liberté ci bandi lay mujj ndax gone gi bu fekkee bu bëggee lekk-lekk bëggee naan naan bëggee euh, naan ndox naan ko bëggee lekk-lekk ci mbedd mi boo ko meree mu bala fa kon day mujj da ko neex parce que gone danaan tiit ko mën koo tas mais gone ko xam boo ko demee ci koy wut ay da fa am fu koy yemale ak fu muy commencé yem gone day danaan jaaxle tiit mais gone yi gën gone Ndakaar gu jaaxle mu day mujj ak nag fàq parce que am na liberté moom moom boppam fu ko neex dem fu ko neex yendu léegi day mujj ak doon gone ko bon du baax nga doon wut mais bon ngay mujj am jafe-jafe ak xeetum xoqatal yi ndongol daara yi di dundu seen sëriñ dara di leen ko tekk askan wi mu ngi koy ñawlu bu baax donte sax am na ay waay defal yàlla yuy def ay jéego ngir daldi dakkal lu ni mel waaye li leer ba leer mooy jot na ngir njiit yi daldi ci jël ay dogal laata ndogal di leen ci fekk